إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di dénk yow jullit foo toll del sant yàlla ci xéewalam yi nga xam ne mënuloo ko pekk ñu ngi dellu di feddali di seydani kenn yeyewul ñu koy jaamu ko dul yàlla ñu ngi dellu di fedd li ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki mujjoon a yónni ci ay yonentam moom dong ca lañ war a roye ni ñuy jaamoo yàlla gannaaw loolu mbokk julit ñi ngi dund ba tey li ñuy tuddee zulhijja muy weeru acc ña nga xamee ne dañoo demoon ca daja bu màgg boobee ca makka am na ca ñu ca yàlla baaxee dellu nañu ci seeni njaboot am na ñu fa des ñoom ñépp yal na yàlla delloo leen ci jàmm ca yool ba ñu fa jëlee yàlla boole ñu ko mbokk aj màkk ni ngeen ko déggee ci xutba yi paase yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kii aji màkka te defu fa lenn lu yàlla bañ buy ni bisi day mel ne bisi keroog lu judd set wecc ci ay bakkaar bal suñu boroom dig na ko ni aljanna mooy nar a nekk wàccuwaayam loolu mbokk di yool bu màgg waaye nag yool la boo xam ni at bu nekk benn yoon dong nga ko ca mën a am bal yow julit da ngay gis bu yàlla yaataloon sa wërsëg ba at mu ne nga aji it da ngay xam ni at yi ngay dund dong nga mën a am ay acc waaw léegi nag julit bi xéroon ci moom bëggoon a yokk ay ajam am la nga xam ne mooy téeméeri at junni at fukki junni at loolu naka la mën a ami mbokk loolu bu ñu delloo ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy xam ne jullit day mën naa am lu tol noonu ci yoolu ay at loolee bokk na ca lii nga xam ne wax nañu ko rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ni ci weeru koor dem nga umra ci weeru koor yàlla dana la may yoolu ku aj makka am na riwaaya buy wax sax ku ànd ak man yonent bi aj makka loolu itamit mooy ku yàlla yombal loolu ci yow bunt bu lay may yoolu aja ngi noonu bokk na ci loolu itamit yàlla yaatal na sa wërsëg at mi day benn yoon nga mën a dem sa dund lu limité la waaye anulu teewoon nga xool dëkkandoo ya anulu teewoon nga xool jegeñaale ya ku nekk nga jàppale ko ba mu mën a aji yonent bi alayhi salaam nee na waa ji loo ko tegtal ci lu baax yool bu tol noonu da nga ko ca am loolee même bu doon ko mas a aji la man nga koo jox mu ajallal la la nga xam ne lenn ci say waajur fekk yow yaay nga toog sa kër nga boole am tuyaabay at ak tuyaabay def njëkk ca ñoom loolu donte ne la bunt la boo xam ne lu néew ci borom alal yi ñoo koy def nañu xam ni Omar ibnul As Abdullah ibnu Omar ibnul As ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day sama maam diw daa baaxoon lool dama ko bëgg a goreel sama jàm bi mu ñeel ko mu ne ko ah bu doon ab judit li day soo ko goreelee jaam dana jot tuyaaba ja boo ko génnelee mu jot tuyaaba ja soo ko ajalee mu jot tuyaaba ja waaye nag sa maam boobu ab yéeféer la woon ala kulli xaal kon muy waññe ne mbokk aj màkka mi ngi noonu mën nañoo am yool ba fekk ñun demuñu waaye dañoo jàppale koo xam ne dafa dem aj aj googee bokk na ci loolu mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne amul kenn koy dem ca jàkka ja ànd ak mbooloo mu julli fajar gannaaw ba mu toog fa di tudd yàlla na doon alxuraan lay jàng na doon ay sikkaram lay def ba baa jant bi fenk mu daal di jóg julli ñaari rakka lu dul yàlla may ko yoolu at makk ak umra boo xam ni yonent bi alayhi salaam ma ngi ca teg ni bu mat sëkk bu mat sëkk bu mat sëkk mbokk loolu ak jaamu yàlla la goo xam ni néew na néew na lool ngay dem gis ay nit jàkka yu koy dundal ñu ngi sant suñu borom jalla wa ala bi nga xamee ni nii bés bu nekk am na mbooloo muy nekk ci jàkka ji di sakku tuyaaba jooje waaye ngalawaay yow mbokk julit même bu doon dimanche ba dimanche ngay reposé ngalawaay dimanche boobu jagleel ko loolu da nga waroon a xëy bés bu nekk di liggéey ba 6 heures ngay doog a ñëw ngalawaay tey dimanche liggéeyuma naa dem ca jàkka ju julli ba pare toog fa di tudd yàlla ba jant bi fenk mu julli ñaari rakka a rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne da nga am yoolu aj ak umra doonte ne ne borom xam-xam yi ñi ngi jàpp ne suñu borom yàlla ci ngëneelam yu yaatu ña nga xamee ne dañoo am ngant bu leen tey dem ca jàkka ja ak jigéen ña nga xam ne julli jàkka du seen farata képp koo xam ne nii julli na ca fajar toog fa mu toog di tudd yàlla di tudd yàlla ci alxuraan bu muy jàng istixfaar salaatu ala nabi tasbiix ya baaqiyaate ba bàjjant bi fenk mu daal di julli ñaari rakka ku mel noonu it yàlla dana ko jagleel yool bu màgg boobi du yoolu aj ak umra bokk na ci loolu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn kuy sol dàllam jëm ca néegu yàlla ba yéenéem mooy mu dem jàng fa xam-xam bu muy jaamoo yàlla wala mu dem jàngale fa xam-xam bu ñuy jaamoo yàlla lu dul ko mel noonu yàlla dana ko may yoolu at makka ca loolu it mbokk di tuyaaba yi gën a màgg ci tuyaaba doonte ne tumuranke na ci jàkk yu bari ñu bari jàpp nañ ne jàkk moom mooy nodd ñu julli gannaaw ba ñu tëj dem waaye mbokk jàkka dañuy gis ni dafa nekk occasion boo xam ne daf lay ubbil yiw bu bari la ca yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax loolee ay xutba la laaj kon loolu muy góor wala jigéen heure boo déggee ne kat am na dars buy am njàngale mu ñuy def ca jàkka ja nga la waaye solal sa dàll te xam ne dem ba nga fay dem ngir sàkku ji sa diine yi boroom loolee booy nibbi yaa ngi nibbi waaleeg yoolu koo xam ne dafa aj makka mu bokk ci loolu mbokk jullit ba tey la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci abu umaama nettali ko abu daawud soloo ko al albani ne xadis bu bu wér la yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na koo xam ne dafa génne këram laab laabam gu sell jëm ca jàkka ja dara yóbbuwu ko dara yóbbuwu ko lu dul jooxe jullit farataam ku mel noonu day yàlla dana ko may yoolu koo xam ne nii dafa acc loolu di mbir moo xam ne nii même bu doon tere ne doomu aadama yi dañu fay nekk naan ndax loolu faratalaak julli ca jàkka ja faratalaak du farata waaye nga la waay jullit loolu ba mu la yitteel xamal ne solo saw dàll dégg nodd dem julli ji ca jàkka ja la ca yonent bi alayhi salaam wax ci ay ngëneel bari na bokk na ci lii nga xam ne wax na ko ca mooy yàlla dana la may la nga xam ne mooy yoolu ab acc loolu mbokk nga la way xam leen ni bokk na ci yool yooyee itamit yow bi nga jullee ba pare nga daal di toog fa nga toog daal di fay wax lii nga xam ne mooy albaqiyatu salihat lu waral loolu mooy faqiir yi nekkoon ca Madina dañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ay yumi yàlla yónni ñun day ñi ngi nekk ak sunu mbokk yi nga xam ne yàlla da leen a may alal ñoom bu jihaad jotee ñooy ànd jihaad ñooy ànd julli ci jàkka ji waaye ñoom ñi ngi def loo xam ne ñun mënuñu ko bés bu ne ñi ngi ñuy tàggu jëm Makka ñi ngi jël seen alal di ci génne zakaat ñi ngi def nangam di def nangam rasul sallallahu alayhi wa sallam ne kaay leen ma wax leen loo xam ni su ngeen koy def da ngeen ca dab ña leen rawoon ca da ngeen raw keneen ku deful na yéen mooy bu ngeen julleetee ba pare toog leen ngeen wax subhanallah fanweeri yoon ak ñett muy 33 fois alhamdulillah 33 fois allahu akbar 33 fois ngeen tëje ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir lii de bu ngeen koy def képp ku leen jiitu woon ci jaamu yàlla bu ngeen mënul da ngeen ko dab loolee kon xamal ni fépp foo toogee def baaqiyaatu saalihaat am nga yoolu aj am nga yoolu jihaad am nga yoolu sarax am nga yoolu goreel ay jaam ila axiri loolee mbokk da ngay gis ni ay yool la woon doonte ne boo delloo ca ña doon nettali xadiis ba faqir yi delluwaat nañ ci yonent bi ñaareelu yoon ah yow mi yàlla yónni lan ñu digaloon kat borom alal yi dégg nañ ko ñoom it ñi ngi def comme ñun ni ñuy def mu ne nag ah loolu moom kon génneelu yàlla la moo koy jagleel ku ko neex ca loolu mbokk jurit day wane ne ngalla waay doomu aadama lépp loo dégg ne yéewa nga ca fexeel bokk ca ña nga xamee ne nii dañ cay jëkkante ay yow mi nga xam ne sa xol mi ngi metti bëgg ngaa dem makka ci amoo loo demee bokk na ci la lay may yoonu at mooy nga def njëkk ci say waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam da ngay gis ne bokk na ci loo xam ne nii daana ko wax moo dina ne képp koo xam ne dangaa yor ay waajur ngalawaay bu dee yoolu jihaat dong nga bëgg demal nga jihaat ci ñoom ba la nga xamee ni ni mooy li wér mooy heure boo jógoon bëgg a dem jihaad te jihaad boobu du jihaadu farata ci yow say waajur na la déet toogal islam danaan la toogal naka noonu aj makka heure boo jógoon ne da ngay aji ji makka ca at googee fekk ajoon nga aju farata ba pare naafila dong moo la yëkkati say waajur na la déedéet ñun daal li ñu bëgg nga toog ak ñun islam danaan la topp sa ndigalu waajur yooyu moo priorité ci yow ca tuyaaba jang cay jële moo ëpp tuyaaba janga naroon a jële ci aj makka ja loolu kon képp koo xamee ne nii yaa ngi nekk di taxawu sa waajur xamal ne yaa ngi ci liggéey boo xam ne yaa ngi cay faggu la nga xamee ne nii moom mooy aj makka bokk julit bokk na ci yool bi lay may aj makka ba tey mooy ay julit ñu tumuranke julit yooyu jaaxle nga faj la nga xamee ni nii moom mooy seen aajo kii nga xam ne mooy abdullah ibnu dinar bokk ca ña nga xamee ne nii dañuy doon nettali xadiisu yonent bi salallahu alayhi wa sallam imaamu malik ci ay taalibeem la bokk moom mu jànge ci ñoom ibnu omar ak ak ak anas doonoon ku siiw ci ak jaamu yàlla bokk na li ñuy nettali mas na jógee fa nga xam ne mooy madina di aji jëm makka bi mu demee romb benn dëkk gis benn soxna mi ngi toog ci yoon bi am ay njaboot gu sew gu ko wër soxna si am mandarga jaaxle lool ci kanam gi mu ñëw na ko waaw soxna si luy sa mbir mu ne ko ah sama mbir de mooy njaboot gi ma wër seen bàyyi moo leen doon dundal yàlla jël seen bàyyi bàyyi ko ak man loolu mi ngi nii ñu nekk jaaxle ci man abdullah ibnu dinar jël lam naroon a dépensé ci aj màkka ga yépp jox ko ko wëlbati gileemam del dellu la nga xam ne muy madina loolu dañ koy dégg ci xasanul basri nga xam ne bokkoon na ci sangu taabiin te mooy génération bi topp ci sahaaba yi benn waaye ñëw ne na ko imam xasan maa ngi ñëw damay aji ji mu ne ko ha yow di aji woon nga farata mu ne ko waaw mu ne ko day gis naa fii ay nit ñu nekk fii ñi ngeeg jaaxle ak ak ñàkk ak tumuranke goo xam ne nga demoon faj seen aaju yooyu day yool ba nga cay jële moo ëpp yoolu aju naafila ba ngay dem di aju naafila loolu it yow mbokk julit yaa gën a xam say dëkkandoo yaa gën a xam say mbokk ka nga xamee ne da caa jaaxle tumuranke ca nga jël xettili ko ca tumuranke googee mbokk xamal ne loolu day daf lay may la nga xamee ne nii mooy lii di yoolu aj dalay may la nga xam ne nii moom mooy yoolu la nga xam ne nii mooy yoolu umra mu bokk ci loolu mbokk julit ba tey doomu aadama bi toujours heure bu gisee ñu aj makka it xolam sell ci yéene bu sell ne ay yàlla ñii day wërsëgal leen jaamu gu màgg gi ay yàlla yàlla nag ma wërsëgal jaamu googe nga sax di ko ñaan te it nga sax di ko yéene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu ñuy bégal ci ne yàlla day jaamam yi da leen a séddale ñeenti groupe benn groupe bi mooy ñi nga xam ne may na leen kattan may leen xam-xam ñu jël loolee ñu am di ko def fa neex yàlla te loolu bokk na ci aj makka ak jullit bi nga xam ne am na xam-xam waaye amul benn kattan bu mu jëfee mu naan cey ak neexoon ma am kattan gi diw am bay mën a aj ni muy aje bay mën a sarxe ni muy sarxe bay mën a leel miskin yi comme ni mu koy defee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ñaar ñii day alaxira seen pay mooy yem ca yàlla amma yeneen ñaari groupe bi mooy ki yàlla wërsëgaloon kattan alal la pouvoir la xam-xam la lu mu mën a doon mu koy noose ci kaw suuf fàtte ndigal yàlla am benn waay boo xam ne moom amul la waaj a am waaye man ka ñee ci noos gi muy noos man ka ñee ci bàkkaar yooyu muy def moom deful bàkkaar waaye yowmal qiyaama la waajay fay la borom bi di fay waajee ci mbugalam lu mel noonu nit lay fay ka nga xamee ni nii daf koo ñee woon ca loolu lii mbokk jullit dañuy wan yaatu gi nga xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala yaatu na ko ci ay yërmandeem ca it jullit di bàyyi xel fu mu mën a toll xam ne bokk na li gën a am solo ci dundam mooy mu rafetal yéeneem ci xolam suñu borom yàlla mooy xam ki nekk li nekk ci biir dënn yi ca borom yàlla bi mooy ki nga xam ne kenn mënu koo nax loolu moo tax ba waaja nga xamee ni nii jógoon na waaje woon jëm ca aj makka ga dogu ca yàlla dogal ngant dal ci kawam ba munta dem kooke it na xelam dal ci ne lay yoolu at moom am na ko mi ngi noonu comme naka suñu borom yàlla di waxe wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasuli summa yudrikuhu almawt faqad waqaa ajruhu ala allah da ngay gis ren ana bari suñu mbokk yu bari ñoo xam ne tàggoo woon nañu waajoon nañu pikiri woon nañu lañu waroon a def yépp def nañ ko joxe seeni million waaye dernière minute ñu ne leen yéen mënu leen a dem mbokk loolee da ngay gis ne yoolu at boobee fokk yàlla bindal leen ko allahuma yow julitit boo déggoo xutba bi nga dégg ñu ne lii da ngay am yoolu at lii da ngay am yoolu at loolee lañ ci jublu mooy la nga xam ne mooy aju na fi la yër waaye aju farata amul lenn lu la ko mën a jox bu dee yàlla may na la kàttan gi lu dul da ngay jóg daa ji dem jooxe ko walla sa wér-gi-yaram mayu la ko nga xool ko ajoon ba pare nga jox ko mu dem ajali la lii rekk moo la mën a teggil la nga xam ne mooy jaamu yàlla gu mag googe waaye bu dee yool bi kese yool boobu moom mën nga cee am téeméeri junni yool bala ngay faatu su dee farlu nga ci bunt yi ñu wax sànq bunt bu nekk nga fexe bus bu nekk nga taxaw ci ngir yokk yool ya nga xam ni rasul sallallahu alayhi wa sallam béggalaate ci ne képp koo xame ñi ni def na ko dana am yoolu at dana am yoolu umra ñi ngi ñaan suñu borom jalla wa ala yal na yàlla sellal suñuy xol yal na yàlla def ci suñuy biir xol aw yiw def ci la nga xam ne mooy yéene bu sell def ci la nga xam ne mooy ixlaas te mooy wéetal ko yal nañu raxasal ci lépp loo xam ne ngistal la ak ndéggatal la yal na yàlla may ñu kattan balam faratal ci ñun ñu mën koo jooxe yal na yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew képp koo xam ne nar ne fee indi fitna yal na yàlla delloo fitna ba yemale ko ca moom yal na yàlla booleel ñu suñu xol nawet bi yal na ko yàlla yeggali ci jàmm yal nañu yàlla yónnee ndox bu ñuy jëriñ te fegal ñu bépp ndox boo xam ne ni daf ñuy lor yal na yàlla defal ñu la nga xame ñi ni moom mooy jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira yal na yàlla defal ñu la nga xam ne moom mooy mujj gu rafet ca mu boole ñu ca ñami jagleel firdawsil ala ñu ànd faak yeneen yi ak siddiqiin yi ak shuhadaa ak saalihiin allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin allahuma aqsim lana min خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين